salaamaaleykum daleen ak jàmm ci xarala académie mbokk yi seen xarala académie tey suñu tutoriel dañoo ñëw ci solution bi nga xamante ne moom lañ doon doon wax comme yaakaar naa ñëpp def nañ euh, exercice bi léegi mën nga seetaanaale vidéo bi nga mën a vérifier nii ndax li nga def ak li ma def ñoo bokk noo mën a def tamit baax na na nga fexe rek ba trouver benn résultat voilà léegi ñu xool man naka laa def premièrement dama def benn print euh, inscription mooy écran bi ngay njëkk a gis après ma laaj ko entrer un nom d'utilisateur voilà léegi mu dugal benn nom. léegi noo noo bi mu war a dugal moo nekk nii non égal input non voilà ma xaar mu jox ma non bi léegi moo ma ko joxee ma daal koy def fii léegi bu dugalee non boobu pare ma laaj ko mot de passe mooy entrer un mot de passe mu dugal léegi ma def mot de passe égal input waaw mu dugal mot de passe bi mu ni ko confirmer un mot de passe wala confirmer votre mot voilà léegi 1 bi mën nañu ko remplacer par votre entrer votre mot d'utilisateur voilà léegi ma laaj ko mot de moo nekk ni ma enregistré ko tamit ci fonction impot bi voilà léegi fii dama def benn condition if mot de passe égal mot de passe 2 maanaam mot de passe bu njëkk bi ak mot de passe 2 bu nekkee ñoom ñoo nuroo indil ko page connexion bi voilà bu nekkee nuroo wuñ ni ko mot de passe incorrect léegi ñu xool léegi bu dugalee mot de passe bu njëkk bi ak bu mujj bu ñu nuroo ma laaj ko nom d'utilisateur maanaam nom d'utilisateur bi mu dugaloon ci kaw ma def ma ma ma daal di fii beneen variable jox valeur input. jox ko benn fonction euh, input voilà léegi ma laaj ko mot de passe beneen bi mu dugal password ma def password égal input voilà léegi bu nekkee ni lii yëpp dugal na ko mu normal day ñëw fii if name égal non maanaam non bi non mujjee dugal fii nii bu fekkee ni ak non bi ci kaw ñoo ñooyam tamit password maanaam mot de bi ak mot de bi nekk ci kaw ñoom ñoo yam tamit ah ni ko bienvenue nga nga nga affiché nom bi mu dugal fii nii bu mujj bi moom njëkk bi ñooy am neen bu fekkee nag loolu amul sinon ni ko au revoir information incorrecte léegi ñu exécuté waat xool ba xam ak solution bi ñu joxe nii koy ñu def python solution point py ok entre un nom par exemple ma def xarala entre un mot de ma def bon DIOP daal def beneen mot de passe bokkul ak bi mun ma mot de passe incorrect programme fii la arrêté voilà léegi ñu laaj ko beneen mot de passe entre un utilisateur def moom xarala un mot par exemple mu def DIOP DIOP léegi mu laaj ko nom d'utilisateur jox ñu sa nom d'utilisateur léegi bon ma defaat euh, xarala parce que mu laa njëkkoon def mot de passe DIOP laa defoon mu ñëw ni ko mot de mu ngi nii anam sax DIOP ok mën nañ mën nañ commentaire yi voilà voilà léegi bu dugalee information yi bu correcté rek day jàll par exemple un utilisateur mu def xaaral la mot ah bon mu def DIOP par exemple DIOP un utilisateur nga def xaaral la DIOP voilà mun la bienvenue xarala moom moo nekk nii gis ngeen comme ni ngeen gisee moo nekk fii nii mën nga si ajouter yeneen mbir comme par exemple nga daan limiter mot de passe bi ci cinq caractères wala six voilà wala tamit nga def yeneen fonction yoo xamante ni yu gën a avancé yooyu lay nekk voilà mbokk yi doon seen xarala académie li moo nekkoon suñu tutoriel bu tey yaakaar ni jariñu ngeen solution bu baax a baax di leen jox rendez-vous ci beneen vidéo merci